ñu ngi amal fii ci conseil départemental bu Tamba ñaareelu ndaje orientation scolaire ak insertion professional ren thème bi ñu jël mooy l'entrepreneuriat face aux réalités socio-économiques locales. l'entrepreneuriat nag moom xam naa bu ñu ko doon tekki ci wolof dañ koy jox turu jéem rek ak góor góorgóorlu maanaam naka la nit mën a fexe ba bu amee diplôme te état jëlu ko. état joxu ko xëy ndax état mënul jox ñëpp xëy mais naka la nit mën a ak diplôme am ak qualification ak formation professionnelle mën a jéem euh, créer liggéeyu boppam loolu la ñuy wax entreprendre voilà développer esprit d'entreprise euh, suñu yaay bi yoree taabalam di jaay gerte caaf ci buntu école ba sax mi ngi entreprendre élève bi ak étudiant bi tamit ba nga xamante ni am na diplôme am am na qualification te yàlla dogal na état mayu ko xëy ca la mu jàng ca la mu mën mu jéem ci dara. loolu moo tax ren ñu jël thème boobu ndax jàpp nañ ne emploi salarié moom daanaka bareetul euh, thème boobu nag dañ ko éclaté ak ci ay sous-thèmes euh, am na ci benn boo xamante ni day wax ci promotion formation professionnelle ak déconstruction des représentations socioculturelles parce que tey jàpp nañ ne formation professionnelle ñi ñu dàq ñoo ko war a def wala ñu mënul réussir ci enseignement général or nit ki war na mën a am tey BFEM comme li may wax dem def série enseignement technique dem def formation professionnelle mais ñun ci suñu kër yi ku ci am BFM te demoo lycée def L wala S yaakaar nañu sam njàng yàqu na donc il faut ñu waxtaan ak askan wi ci njëriñu formation professionnelle boobu mooy bu njëkk bi ñaareel bi mooy ñu ne entreprendre pour faire face aux réalités socio-économiques loolu tamit dinañ ci waxtaan am na spécialiste bu ci waxtaan naka la ñuy góorloo ci yan base la ñuy demee naka la ñuy créer entreprise et cetera et cetera loolu pour ñu réformation formation professionnelle ñetteelu communication bi mooy euh, politique yi nga xamante ni état bi tey développé na ko pour gunge jeunesse bi. donc ñu jàpp ne ñett yooyu dafa ànd formé wu jógee fa entreprendre mais aussi booy entreprendre nga xam yan mbir la la état euh, tegal pour que boo ci jaaree sa entreprendre boobu mën a yomb déjà suñu lycée technique bi euh, ministre jox nañu ay garantie ne dana sotti ren mais au-delà de lycée technique bi sax université Sénégal orientale lañ bëgg mu taxaw ndax bu taxawee dina nekk université boo xam ne day former ci métier yi am ci région bi te loolu aussi dina may occasion ci ñu xale yi euh, ñu jàngee Tamba ba seen njàng jeex te duñ jógee Tamba ndax génn njàngaan yi dafa xaw a metti mais aussi dina tax ñu développer métier yi nga xamante ne am na fii ndax Sénégal Tamba dafa am euh, dafa nekk ci région yi nga xamante ne dafa am ay possibilités yu bëri voilà ay possibilités yu bëri ay ressources minières ay ressources hydrauliques agriculture donc on peut développer beaucoup de métiers